Euh, Vox Populi dafa daal di euh, xëy xëy ci li nga xam ne di moom mooy euh, parrainage bi ak CREI bi moom fi ñu toll nii waxtaan nañ ci waxtaan yaatu yaatu ni ki démb fi ñu toll nii nag bu ñu xëyee tàggale CREI bu mu la bett ndax fi ñu nii ñu ngi koy waaj a gas suul ko daal koy fas yéene daal di wutaleek benen banqaas buñu duppé duppee pôle judiciaire financier yéen kay dal ci ñëw assemblée nationale ci bopam nak ñu ngay wéy di wéyle li nga xamné li lii moom moo tukkee ci dialogue national bi nga xamné bi moom lañu woté won euh, lañ fa tënkee won mom lañ do waxtaanee ni ki démb ci assemblée nationale Ismaïla Madior Fall mom dal di japp né fiñ ñu toll nii nag

Ousmane euh, Sonko dana bokk ci élection yi ci nii wala ca naam di kaddu honorable député Guy Marie Sagna leen loo xam ne yéen euh, euh, parrainage bi ak Amlep, li ci di am Bakary Domingo Mané taskatu xabaar la xel màcc lépp lu ci communication politique mon nag li mu jàpp daal mooy waruñoo Hamnegi, ak seggukaay Aïnit, xam ne gi dañuy xañ ay nit yu bëgg ndax c'est anticonstitutionnel kii di euh, Ababacar Fall mooy njiital GRADEC mooy secrétaire général ba moom itam daal di euh, jàpp na daal am na ci candidat yu bari yoo xam ne yi dëgg-dëgg euh, war nañu xoolaat ndax ay candidat xusma ñàpp lañu. ku indi loolu Vox Populaire. Vox Populi moo indi loolu Abba Mbaye ne li ko leer boo loolu daal mooy li nga xam ne li tey mooy waa Pastef yi ni leen tongale rek si ngëri leen nañu xam ne xel ne fi ñu toll nii loolu duñ ci am ndam ndax ñoom. nee nañu ñoo demoon ca dialogue te amul lenn luñ ci rëccu bu doon tey di suba dañ koy defaat ñoo waa Khalifa Sall lañu loolu la yéenekaay bi daal di euh, xëyee bay moom. l'enquête yéenekaay enquête yéenekaay li mu daal di euh, xëyee mooy cour de répression de lancement illicite mooy CREI yi fi ñu toll nii nag euh, daanaka ñu ngi koy waaj a gas suul daal di ko fi jëlee lañ ko fas yéene wutale mooy pôle judiciaire financier. yéen kay daal di ci euh, ñëw ci li nga xam ne lii moom mooy euh, ñàkk bokk gis-gis yi ci amoon ni ki démb ci assemblée nationale Ismaïla Madior Fall ne euh, jot na maanaam socialiste yi yeeg ak ñu bëree bëre bëri daal di ñuy fàttali tuuti parce que boo fàttali ko CREI yi ñu ngi ko taxawlu at 1981. ci Abdou Diouf moo ko taxawaloon moom nag mu ne taarix dafa baax ñu koy fàttali fu mu toll mm-hmm. bu ñu ko fàttalee tuuti la ko taxoon a jóg ak la ko wundoon dana tax ba ñenn ñi xëy na seen ab ak seen i kàddu danañ ko xoolaat maître Omar Youm APR la bokk moom mu daal di jàpp ne daal fi ñu toll nii enrichissement euh, illicite nag bu ñu yaakaar ne bu ñu fi jëlee CREI yi képp ku fi doon euh, feesal say poste mënoo wax foo ko jëlee. Mm-hmm. dafi euh, kenn duutal a toppati nee na déedéet. enrichissement illicite ba tey mi ngi fi ba tey tamit nag ku def naka su noonu am na yeneen yoon yu mën a jaar. ngir daal di lay topp ndax dil d'enrichissement illicite ba tey fi ñu toll nii kenn dindeegu ko ndax ñu ngi ko dëxëñ ci biir pôle judiciaire financier bàyyi Modou Fall booy jinne tey lañ koy bàyyi mu génn. bàyyi Modou Fall yaa ngi ko fàttaliku. Ah, waaw bu baax. ah bàyyi Modou Fall booy jinne. booy jinne men waaw booy jinne men. booy jinne ba tey mi ngi ci mi ngi. mi ngi woon ci loxoy yoon. moom nag prisonnier bu amul tur la. tey la war a génn ci biir euh, kaso bi. daa bëri maanaam ci prisonnier. président Macky Sall nee na fi nga xam ne gars yi dañ fay déparé di dem bitim réew nañ ko ñàkk waaw bu fekkee ne côté waar la ñuy jógee. bu fekkee côté Ndar bu fekkee côté Kafountine wala côté Njaareem nga xam ne daanaka artisan yu bëri léeg-léeg dañuy dem hmm, seen place yi da ngay dem fekk ñu mun a wéyam te amoon nañu liggéey ba noppi yooyu yëpp Sénégal d'abord. Hmm. bés bi le jour. très ni mu euh, xëyee mooy coup contre coup daanaka ci diggante waa Pastef ak waa taxaw hmm. fi ñu toll nii daanaka waa Pastef dañoo Pastef ci ko waa taxaw waa taxaw taxaw seen kaw moo tax it ne daal fi ñu toll nii diggante. Ousmane Sonko ak Khalifa Sall seen diggante euh, rataxul ñagas na te mën naa gën a yokk yéen kaa daal di ci euh, ñëw Guy Marius Sagna daanaka moom dafa daal di jàpp ne dialogue ba ña fa demoon ñëpp dara yëkkatiwul leen lu may fexe ba waxtaanee baara yëgu fexe ba Ousmane Sonko bu mu bokk loolu doog ñu leen yëkkati woon Abba Mbaye tontu ko tontu bu weex xat ñoom itam ne fi ñu toll daal kenn ku nekk na jël ay responsabilités waaye léer boobu mooy taxaw moom assumé ci dialogue amul lenn lu mu kër danañ ko dindi parrainage opérationnel daal nañ koy tamit euh, waxtaanee ba daal di koy euh, jëmal léegi nag la ci des mooy euh, candidat yi Khalifa Sall Karim ak Sonko ndax danañ bokk ak wala du ñu daal di bokk préfet bu Ndakaaru tere na ndajem waa F24 yi ni ki tey lañ ko waroon defal. lu laas indi. laas li mu daal di indi mooy lu jëm ci li nga xam ne lii moom mooy Pastef daanaka bu ñu xool xeex bi ñoom cundung la. ñëpp ci ñoom lañ jëm. Hmm. waaw ñoom daal wéet nañ ci xeex bi daal ci gàttal. waaw dañ leen sot. waaw dafa mel daal dañ leen a dañ leen a sot bëgg leen a buntu xataal bon xos leen yéen bi ne daal fi ñu toll nii booy xool ba xool mooy coow lu bëri woon a ni ki démb ci assemblée nationale. ca ba ñu fay di bëgg wate ngir dindi fi cré yi waaye te lu jëm ci wàllu parrainage bi ci boppam tamit yéen kaay bi ne coow lu bëri woon na ca waaye fa mu mujjee moom daanaka bëri bu képp mbaam la woon. Hmm. kay bi daal dinay euh, ñewat ci euh, politique euh, ñeel taxaw askan wi ci walu social ak di leen bay xel ci stratégie ëpp aérien 2021 2025 fin ñu ni nii ña toll ci waxtu xayma ak bilan mm-hmm. mercato daanaka fi ñu toll nii bu Sadio Mané dem fekk Cristiano Ronaldo ci Arabie Saoudite bu mu bet kenn mm-hmm. wallu ak euh, taxawu senegal ñoom fi ñu toll ni démb dañ ne lay jàll assemblée nationale ànd nañ ci lool waaw tàccu sax kay waa Pastef ne yéen a koy wéetee de ñun de duñ tàccu c'est boo mu jàll nag député wallu yi ci boppam euh, daanaka dañ faa tàccu lool Ismaïla Madior Fall waaw hmm. député waaw député wallu yi xel dafa tey ah. Abba Mbaye bu tey itamit waaw Aba daal nee wax dëgg yàlla nag réew mi kenn ku nekk nag war ngaa doon euh, war ngaa nekk kilifa. <coughs> ndax dem ci dialogue ñëw am taxawaay ñu ñuy saaga ak euh, di ñu wax ne da ngeen doon baara yëgoo nee na loolu ku respecté sa bopp doo ko wax di l'observateur yéen kaay li mu xëy alliance pour la république APR yéen kaay bi ne Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo daanaka fi ñu toll nii seen diggante bu fekkoon ne dañ ko doon nëbbu tamit mujj na feeñ ndeke ñoom nuy xoowuñu bi daal di ciy euh, ñëw impôt ak euh, domaine ak lu daal di euh, jëm ci li nga mooy wàllu euh, luyaas beeg yokkate gi hmm. yooyu lépp yéen kaay daal na ñëwaat ne daal am nay jafe-jafe yoo xam ne daal ci am ci doxalin wa hmm. lu jëm ci jàngat mi nag ñu ngi wéy di ko daal di def ci ñaari gars yi Macky Sall yi di Amadou Ba ak Abdoulaye Daouda Diallo président nag ban ko laajee na ko sa gaay yooyu ak euh, seen gaay yi doon xeex ca euh, APR siège ba loo ci loo ci xalaat mu ne vu naa leen gis naa leen te danaa ko bàyyi xel. ca tànneef ya dafa vu rek. est-ce que du fa jaaree sanctionné leen. <laughs> Hmm? mu ngi noonu les échos. yéenekaay li mu daal di euh, xëy bay moor mooy ci assemblée nationale ak projet de loi ñeel wàllu parrainage ak dindi fi euh, lii di wàllu euh, crime di suppression bi yéenekaay bi ne fi ñu toll ni ki démb tàngoon na jépp ci assemblée nationale ci diggante député yu yeewi askan bi ak ñi nga xam ne ñoo faree ci mouvance présidentielle Ismaïla Madior Fall ak la mu ci daal di yëkkati na ay kaddu honorable député Ismaïla Diallo moom itam ak la mu fa wax ak gaa ñu taxaw yeeg wàllu lañ ko tontu. mu wax xat ni gii ni Guy mu daal di jàpp ne daal fi ñu toll nii euh, mënuñ fee fexe ba baar yéego ba ab candidat bu ci mel ni Ousmane Sonko bokk loolu moom nee na ku ko xalaat tamit sooy ba nga teg ko suuf. yéen kat daal nay euh, xeet ci euh, leneen jëm ci li nga xam ne ni moom mooy tuumaal ci wàllu am ab relation ak terroriste yi Alpha Yaaya Yaaya Bari moom nag nee na loolu ñu koy tuumaal defu ko tey defu ko ëllëg. le quotidien le quotidien yéenekaay li mu daal di euh, xëyee lu jëm ci li nga xamné mom moy euh, doomu Sénégal ya nekkal Sénégal ci bitim ré ci consulat ya ak ambassade ya dañoo wax né dañoo am jafe-jafe ci wàllu luyaas foofu ba amna na ñuy waji génné sax. ci mm. bitim réw sa kër yi ñu dëkk. loolu euh, nak Maître aïssa Tall salné du wax ju dëggu amul. amul kenn ko xamné ki kii ko fay waji génné wala ñu def ko mise en demeure néna lolé lépp nak amul bu bëggé wax nañ wax lénen wala ñu bi beneen sujet. assemblée national loi ci wàllu parrainage bi wate nañ ko ni ki euh, démb yi àndu ci woon waaye dafa mujj jàll préfet bu ndakaaru tere na waa F24 ndaje mi nee na leen la may bañ mooy ak pëccëxoo di trouble à l'ordre public moo yaakaar oustaz buy organiser dara sax bu ma ñu ne ko trouble à l'ordre public ak ah, muccoo hmm? li mu daal di euh, xëyee mooy li nga xam ne li euh, mooy visite inspection bu CAF ci waxtaane Sénégal mi bëgg a organiser Euh, li di euh, kan euh, ko doon di waxtaanee yéen di ci ndaw yi fan ci délégation ñu koy ngir xool loli naka di di ak di source Bal Baki moi capitaine d'industrie nek PDG bu société bu Euh, lu jëm ci wàllu napp gi ak tolluwaayu ci réewum Sénégal ci lay xëy di daal di wax wàccu ci dara nee na euh, armateur yu chinois yi ci boppam fi ñu toll nii bu ñu xool daanaka ñoo jël pépp jël péfét lépp ñoo ko jël ci kaw waa Sénégal yi. Euh, lu jëm ci li nga xam te nag moom mooy jini ñu ngi wéy di gën a sori ci biir géej gi tey jii nag mu ne fi ñu toll ni daal war nañoo xoolaat mbir yi ndax bu ñu moyul ku bëgg te jën bu baax da nga dem ba Conakry hmm. loolu moo dina doy waar di jën bu baax laa wax na rawatina dëkk boo xam ne naan ceebu jënee suñu plan national waaw yóbbu nañ ko UNESCO ñu yëpp ci wàllu tàggat yaram ànd kook euh, stade yéene kaay stade yéene kaay transfert Sadio Mané fële ci Arabie Saoudite ca Al Nassr fi mu toll nii bu mbett kenn daanaka euh, ay waxtaan yu ndaw moo ci des ñu daal di koy dëggal hmm. donte ne am na ñu jàppoon ne warta jógee Bayern na na fa des waaye kenn ku ne sa bëgg-bëgg nga doon wax waaye bëgg-bëggam ak ñu and ak moom sës rek di ko xelal mooy na bay Bayern dem ca Al euh, nazr mm. nekk benn club bu nekk fële ci Arabie Saoudite war faa fekki Codé Cristiano Ronaldo. Ronaldo ñoom ñaar ci benn équipe. fan yii fan yëpp ñu ngi wax seen seen duo ñoom ñaar. waaw waaw dana mën am dana dana joxe de. Hmm? presque euh, saison saison ci li nga xam ne mooy gaynde yi. yéen kaay daal cay euh, ñëwaat ci Kalidou Koulibaly ak euh, Alfred euh, Gomis ñoom ñëpp yéen kaay daal ñëw ba ci Edouard Mendy yéen kaay daal di ñëw ca nañuy dooreel li nga xam ne li moom mooy mbir mi ndànk-ndànk lañ koy daal di def. Neymar ndax day wéy di des ca Paris ba tey <coughs> nee na daal mi ngi fi te ba tey daal waxagul kenn dara mu ngi noonu hmm? Hmm. ñu daanalee wàllu làmb sunu làmb Ama Baldé Modou Lo seen ab combat jàpp nañ ko juróomi fan ci weeru novembre léegi leer na amatu dama blessé amatu dama kii ah mën nañu dem ba ci kanam nga ñëw indiwaat certificat nag hmm? en tout cas combat euh, royal lay daal di doon lu combat jànq de mën na na combat tëgg rek ñu ne combat jànq la lu nekk combat hmm? jànq nañ combat jànq benn la mooy tafaati bi ah? ñu bi ñu tëgg ak ëmma euh, seen loolu jànq la waaw jànq la mosunoo laale kon ñun dégguñ tur jànq xamuñ ko ñoom ñaar mosu ñoo laale. combat ñu mos a laale ñu aussi mosu laale d'accord ciir yi Ahmed Deme dimanche dañ koy euh, tëgg euh, combat la boo xam ne bi daal. Hmm. xam naa ne sooy boo ñuy seet ci euh, Ousas. <laughs> ndax xarafa xuufee moom boo mooyul ku ko ëppale yaay daan sa morom. xarafa xuufe daan ah, loolu daal fi mu toll nii ñoom daal foofu lañuy ñu léegi ndax neen dañoo dañoo témboo ci lépp. <laughs> def ci gànnu ñaan yaa des. jërëjëf.